bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar ci bis bu màgg bu tedd bi tax nu daje fi tey euh, yàlla dogal bis bii nga xam ne ci la maam Cheikh Naye Fall am ngërëmal sunu borom muy ngërëmal sëñ Touba te daa xam ne ku yalla gërëm saa bu la gërëmee sa aajo faju ndax ngërëmul yàlla aku ñaasayam yow mi ko boo dem ba soo ba mu soobatu la ba nga bëgg ko fay jëlee day gën a yaa waaye du deñ daa di wax ne fukki fan ak juróom-ñaar kat doom ci la ma sëñ Bamba gërëm ngërëm loolu nag ci la gërëm murit yëpp moom la sëriñ Bassirou Fall Alxuraan di màggal ànd ko njabootu ak mboolem baay Fall pour niñ nekk tey sa xel gi fii ci jàng alxuraan xasida ak tudd yàlla noonu lañ koy yendoo fas yéene ko fanaane ba keroog asamaan di set sëñ Bada mu baax mi fi nekk di doom ci sëriñ Basiru yeewi jaam ñi noo ngi koy ñaanal baax sa borom guddal aw fanam ba mu àggale yéene waajuram di la ilaha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 إله إلا الله لا إله إلا الله ku may dimbali màggal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp لا إله إلا الله لا إله sama jàmbaar ja dem na لا إله إلا الله Serif Tilala Fall sunu jàmbaar ja dem na laa ilaaha illallah barsàq jël na waaju baax laa ilaaha illallah barsàq jël na waaju baax laa ilaaha illallah ku may dimbali màggal maam Seera Fall ku sopp maam Seera Fall defal ni ñaari baaram ñu màggal maam Seera Fall